jërë ngeen jëf suñu mbokk yi ñuy topp à travers Leewtoo TV ñu ngi leen di bëggee di la ñaanal jàmm bu baax a baax tey la samedi le 24 décembre 2022 fii ci arène nationale Yaram Aar la ñu àndal ñu tëgg combat bu neex diggante Tapha ak Gamou Gueye incha allah lépp la nga xamante ne bii ambiance la xar fa xur fa la lépp lu jëm ci wàllu làmb fii ci Leewtoo TV man ak ki nga xamante ne bii mooy sama caméraman. jibilaay incha allah dinañ leen ko jox ci anam bu mucc ayib Tiso bébé Elton moo ñu woon gannaaw mi moo féete suñu loxo suñu loxo ndeyjoor mi Tiso mi ngi def ay déplacement attention bébé Elton mi Tiso bébé Elton mbër mu neex la. daan na ko daan na ko ba pare dóor ko xanaa loolu bokkul ci làmb de waaw mais bébé Elton mii lu ko dal Elton mbaa ñëw na numéro ak Talla Gaynde numéro ñaari numéro 2 la Jibilaay Talla Gaynde ak Petit Baye Fall Petit Baye Fall moo féetee càmmoñ attention Talla Gaynde door na attention Kaawo attention Kaawo door mu daanu laa ilaaha illallah oh jàppante nañu rof na ko caxabal xale ba teggi Talla Gaynde numéro 2 Petit Baye ñoom ñaar ña ngay rokkos xale ba rof na ko caxabal dafa sori. Caaka Roof ndax laa ilaaha illallaah Petit Baye Fall daan na Talla Gaynde Petit Baye Fall daan na Talla Gaynde roof na ko caxabal muy wëlbatiku mu ànd ak moom daan ko jël bu rëy bëgg naa loolu jibilaay candeela doomu jolof arbitre baa ngi wax ak ñoom li làmb bëgg ak li làmb bëggul arbitre baa ngay laaj ay zizam ndax pare nañu laaj na candeela laaj na doomu jolof soufflé na génn seen diggante ñoom ñaar candeela doomu jolof ña ngay lewaatoo doomu jolof def déplacement gis nga attention doomu jolof dóor candeela remise candeela doomu jolof candoole candeela moo féetee ndey joor jàkkaarloog ñun doomu jolof moo ñëwoon gannaaw candeela doomu jolof attention candeela dóor na mu ay eh, def na demi flexion jógaat wala dafa wàcc candeela dóor na coup bi léegi baax na candeela dóoraat na Thiendella eh Thiendella ngi dóor doomu Jolof fayu dóoral ma dóor am njaay joxal jóob Thiendella doomu Jolof attention doomu Jolof a ngi fayu doomu Jolof a ngi fayu mais moom par benn loxo lay xeexee day benn bennal doomu Jolof daw na yooru jël na ko lay laaxe la laa daan na ko doomu Jolof daan na Thiendella doomu doomu jolof daan na candeela jëlal ma supporter ya jëlal ma xala ya oh ñooñu ñooy ànd ak xale yi supporter yaa ngi noonu fans club yaa ngi noonu doomu ndey yaa ngi noonu ñi ñooy ànd ak xale yi ñooy ànd ak mbër yi macha allah candeela daan doomu jolof xale yi barki alxuraani karim yàlla na àdduna bi ñëpp am jàmm yee di wax kontaan na kontaan naa gis naa ni ma taxawoo maa ngi sant samay waajur bëri dañ Jolof est-ce xam na ne combat bi combat capital la ci lu mu jógee. waaw man dama fee teg jeexal ngoone ngoone barki alxuraani karim am na ñoo dama leen yoreel xaalis si làmb su ma ñibbee ay bor mu may xaar dama gars yi jàppale dama gars yi jàppale ay bor may xaar. yee damaa leb xaalisu jàmbur def ko si làmb ji sama papa vieux Sira borom Thiès. sa papa Ndiaye yaa ngi dégg sëñ Fallou Assane gars yi dañuy sonn. gis nga génnoon si sa combat ak ki nga xam ne mooy armée bu ndawraan. waaw Sadio Jolof ne damaa gàddaay mais nga ñëwaat indi état bu doy waar lu war a doon gàddaay. waxoon naa damaa gàddaay damaa gàddaay dem samay mbokk. yee ñëwaat naa nag nañ ma xaar maa ngi ñëw. nañ ma xaar maa ngi ñëw. gàmmu gay dafa mbër daan na ñëw ñu bëre. gàmmu daan na ñëw ñu bëre. waaw grand combat bi incha allah. ah nee na loolu ñun non ñun xale bu ndaw lañ. xale bu ndaw la judoogul sax waaw fi mu toll nii waxuma la dafa mbër waaye. mais papa Caatu Jolof daa jóge si combat ak armée bu ndewraan. mu jóge fi daal di ñu ne ko foo mu ne damaa gàddaay mais li mu indiwaat lan la. mais gàddaay bi loolu la jariñ gàddaay na liggéey na te sama te ku ko xool xam ne wax dëgg yàlla fa mu bokkatu yoon am na lu fa def looloo ko may lii tey si kàttanu yàlla nag waaw di wax ne mbaru jàmbagan si gàmbaaw yi am combat yal na leen yàlla may ndam ku si mel ne ñoom Laurent Liss Ndiago président Ndik Fall ñu ngi koy bu baax a baax ak yeneen gars yi Moussa Pout ñoom Abdou Diouf yow adduna ñëpp maa ngi sant ñëpp ñoom Tos Moussa maa ngi bëggee waa jàmbagan si gàmbaaw ñoom Père ñëpp ngooy na kontaan